len demb dafa am ay nir bi xawma nir bi lañ ko wax xawma ay manifestation ñom ñoo fi ñew ñoo ñëw yàq suñu bagage ay agressé ñi luñu ñu appel moy état ndek sécurité da dañ na dafa am ñuko mom té ñun ñew nañ fii yàq suñu bagage li table yi yëpp lañ lañ yakaté jël suñ bagage yobbu avant lool bañu ñuy renfort moy way marché bi bobu fekk na ñun jël nañ suñ marché bi bagage dañu lancer appel nak état fekke sécurité amul ci dëkk bi ñu wax ñu ndax ñun mom yàqal nañ ñi ba paré waaye littéralement dañ lu ñuy lancer appel moy moy marché bi yëpp paré nañ té état mom mom lañuy waxal marché bi yëpp paré nañ ñu ngi yor ay ngannaay képp ku ñëw ci bakkar marché bi dañuy far sa bakkar ñun moom waxatuñu ndax lu ñu wax mom ñun lu ñuy lancer appel moy ñu jappalé ñu taxawu ñu ay ndaw lañ Macky Sall mo ne citoyen ndaw ñi dalee nañ jàppale tëddatuñu nelawatuñu ñu ngi taxaw pour soutenir suñu marché yak nañ fi ay millions santé de millions yak nañ ko fi waaw ñu ngi ñaan nak état mu jappalé ñu mu tekk ay seen yo xamné ne daan siñ doole gëmuñ lenn lu lu liggéey gëmuñu waaw ñi salum lañ joggé ñi bawal gëmuñu agressé xamuñu loolu ñun salum salum ñi bawal bawal kenn xamul leen Afrique tiaxan nda réew mi nag amasser amassé loolu si sénès bi ñun ndaw senegal ñun ñoo mëna amasser na leen deglu